salaa sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi jëmmi sëriñ Touba tey ci kaw suuf. nee na ñu ngi nuyu président Abdoulaye Wade ci turu sëriñ bi. di ko dalal jàmm fii ci kër sëriñ Touba. mu ne ndax président Abdoulaye Wade fii miin na ko miin na kër gi kon sëriñ bi nee na mi ngi lay dollee sant bu baax di la gërëm ci nim la ko daan waxee naka jekk ndax yow président sëriñ bi nee na xam nga li nga séq ak yoonu murit xam na li nga jàpp sa diggante ak sëriñ Touba ndax nguur boole wala ak yoonu murit mu ne loolu nag sëriñ bi jàpp na ko te sa tànk tey yii firnde la ci ndax wàccoon na la sax mu ne boo yónnee woon mu jàpp ne teew nga kon mi ngi lay sant bu baax kon ci ànd bi nga xam ne lii nga xam ne yéen a ko bokk muy ubbi teg jumaa ji kon sëriñ bi dafa wax ne mu ne na sa xel dal bu baax ndax serigne touba dafa waxoon ne an man wasalani la la la laa yu xaridu duni wii fa inna yakunu min innal muxarabina wa anna man wasalina li duniya faxat fa inna allaha yukrimuhu maadaama xeyuk nee na képp koo xam ne ñëw nga ci man te àdduna taxu laa jug suñ borom dana la boole ci ñi ko gën a jege ku ñëw ci man nag te àdduna tax laa jug suñ borom dana la teral sa giirug dund mu ne kon képp ku yaakaar sëriñ Touba na nga xam ne suñ borom dana la teral sa giirug dund nee mengle kon mi ngi lay fatali lam la waxon rek ba nga ñëwee Touba mu wax la ko ci làmmiñam ci li nga xamne ne nga ko yoonu murid te ñëpp xam ko muy lo xamne ne da koy fatali mu ne te wax na la ko kérok mu ne kon lolu na nga xamne du ko faté ñim ko sékkali duñ ko faté kon rek la la amel ak ngeureum ak dila ñaanal mune ñaan giit moy suñ borom degeural la gën la degeural katanal la gën a dolli nga gën a réew lu yag ndax lolu bëgg-bëggam la nee itam mune lang ko waxon bi campagne bi jup mu ne dégg na ko bu baax lam la ci waxoon it foofu rek la ci nekk mu ne ndax sëriñ bi dalaa waxoon ne mu ne daf fee nekkoon ak ay kilifaam sañu ta def sañu dindi léegi nag ndegam yàlla def na moom mu nekk fi te xam ni nga demee ci moom lépp loo xam ne lu ko war la sa diggante ak moom nee na mi ngi ci te mi ngi ci bu baax a baax mu ne te gën dina la ko gën a leeral ba nga gën koo xam mu ne kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax waxtu wi dafa jot te sëriñ bi ñàkk lu mu bëgg a wax ak yow waaye mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci jëf yi nga xam ne jëf nga ko ci yoon wi